ay poulain am dalante moom chaque jour li ñuy wax mooy tàcc nga mooy borom Pikine gis nga ñoom jiital nekk suñu kilifa. mais nag euh, bu nu ko teg foofu ne Sa Thiès xale la rek war naa mën a daan Eumeu Sène non non non Eumeu tolloogul fu muy néewe doole tolloogul te yàlla moo yor ndam yàlla na yàlla may ndam ci barke Seydina Muhammad Eumeu Sène mooy baax bëgg ay mbokkam ba pare yéwén Eumeu bu la gisee sax nga trisi sax kanam xaw a am nu mu mel rek Eumeu day mel nii mooy euh, maanaam euh, triste googu ci moom la waaw am ku baax la. ku mën a dimbali mboqam. nari royaay nayriir ama koroga ñalange sawaay ama seen Thank you. push her, push her, push her. Get it, get it, get it. Get it. Come on. 자, 물 넣고 있을 거야.

Thank you.